ñëw ci boobu xam nga euh, mun maa ngi ko doon expliquer bi may wax affaire yi euh, communication article article euh, article 15 communication xam nga loolu boo ko bëggee traduire si ci compétence locale yéen da ngeen naan plainte waaye ñun cour pénal li koy ooyee mooy article 15 nga xam ne ku nekk mun naa jóg yónnee yi ay information ne waaw lii kat a ngi xew gis nga bu ñu jotee loolu expliqué naa ko ba pare bu ñu jotee information yooyu yëpp foog ñu vérifier ko dinañ seet fii ña kii binda ñu seet kii binda seet boole yëpp seet ndax vraiment euh, lii lu cour penal war seet la wala wala déet ci foofu lañ toll fi mu nekk gis nañ euh, kii am na ñu ñu ñu bari ñu binda di ñu wax événement yi li xew ak yoy ñu ko koo euh mu ngi ci phase bi ñuy ooyee euh, nga xamné dañu jël information parce que yu bare ñew té ñun dañ euh, li loi bi daf ñu obligé lu munti ñew ci ñun fokk ñu seet ko même xam nga ma ngi doon wax naa ba di expliquer hejna na euh, I was not clear waaye ma ngi doon expliquer né dañoo tok sax nit ñu yónnee ñu affaire divorce ak yooyu parce que xam nga rek waaw waaye foog ñu seet ko seet ñun li ñu war a seet mooy ndax euh, crime yi cour euh, crime yi CPI a été commis loolu la ñuy seet seet gravité bu bu bu bu crime yooyu noonu euh, def analyse yi seet ndax am na interest of justice intérêt de la justice pour ñu dugg ci walla ñu ñu xaar parce que xam nga yi warta dugg ci loo xam ne day gën a dañ koy gën a yaaxa ñun jëf ñu tax a jóg léegi bu ñoo balaa ñoo dugg sax ci ci béréb foog ñu sedd ah CP yi dugal yi dina baax ci dëkk bi wala du baax bu fekkee dafa nekk lu du loo xam ne day gën a yéesal yëf yi dinañu taxaw bu baax ñu ñu ñu vraiment seet parce que liñ bëgg a mooy ñu duggee jàmm ñëw justice am euh, ba pare sécurité am mooy mooy intervention te loolu yëpp dañ ko segga balaa balaa cour pénale di di dox donc plainte yooyu noonu li ngeen di ooyee plainte yi ñëw mooy article 15 communication ñu ngi ko ñu ngi ko seet ci bureau bi